xoofe déglu nañ la ba nga pare waaye waxoo fi dara waxoo fi naada yow mii boo ma dégluwul ba ma pare bul ne la baara wax parce que waxaguma dara man nekkuma fi nii Sidi Diop nii Waali nii Ndeye Ndiaye Banna xaa wala Ndeye Ndiaye Banna xoo man Sonko moo ma ñor ak jàmmi réew mi mais dama ne tons waxoo fi naada xam nga lu tax dama la dégg nga naan Sidi ba mu commencé bees li mu nangu moo ko topp ba léegi ñu jël ko di ko dóor ci kaw Waali Waali bi mu commencé bees jëluñ ko di ko dóor ci ko Youssou ku ci wax loolu da koo topp loolu yëngal business la woon rek bu loolu jàllee Sidi li muy dégg ci booy di courage ci boppam moo bëgg a bari moom daal ji koy RTS la yor journaliste bu mu defar ba mu baax rek TFM récupéré Sidi lan mooy problème bi lañ bëgg a xam yow boo yóbboo extérieur ñu daw abandonné lañ ñu ne booy di courage nga defar sa kat ba mu baax rek mu daw bàyyi la fa ñu ne booy di courage sa euh, jottalikat dem bàyyi la ñu ne booy di courage li ngay dégg di courage mu ngi bëgg a bari de coow li nag lañ bëgg a xam fan lay yëf yi di méttee maanaam nit ñi ñoo gorewul wala nga yow moom sa problème mooy Karim Wade jamono bi mu nekkee Sénégal maanaam wéyoon nga fi su ngeen ma ko mayul dinaa xaru yaay booy waxal ma baay booy ne ko moom laa bëgg euh, euh, xaw ma lan ñu dog buum ba karawaas ba xaw ma lan ak lan yooyu yëpp boole woon nga ko fi ak benn wéy boo xam ne accompagné woon nga ko ba aéroport defe naa mu dem su ma juumul yooyu yëpp nga boole ko fi dara sottiwul déggati nga ne Karim Wade joxati nañ ko laissez-passer mu ngi waratee dugg Sénégal nga dajalee ci xale jigéen yi ngeen dem buntu aéroport naan da ngeen di suus man clip bi xaw ma sax fu ngeen ko tourné gis naa a ngi def ay wanget wanget loolu gune yi xewal a sóoli Karim mu ngi duggati moo ko indi moom réew mi lay laaj dégg nga je dis bien réew mi moo ko tax a jóg nga jàppale ñu rek ngir yàlla tata commencé ti nga say suus ak say mbir clip bi neex na ñun ñëpp seetaan nañ ko gis naa ko félicitation